nee ñu koy sant di ko gërëm ndax di ko xëy nag di nit bu rafet yàqut seen digganteeg doom yi mais du nii xam baayam ñooy kan tax ñii ku leen fonk rek def nga li war na askan wi ku mën a moo jóg taxaw jàkkaarloo gouverneur Merlin le 7 juin ne ko li ñuy waxal suñ Touba dara mu ci sama am fay ko màggal. bi buur bu ñuy di ko màggal ku mën a mbokk internet yi ñu bég kontaan euh, amati mbégte jàkkaarloo ak yéen bis bi tey pour ñu boo gisee boobu ba tey waxuñu da ñun ñooy ngénte suñu bis la moo tax <laughs> pour ñu def ITV <laughs> du yomb mais suñu jigéen moom buñ ko gisee faaw ñu wax ak moom ndax ñoo bokk bis bi naa bi maa ngi lay fay euh, di nuyu sa mbokk téléspectateur yi di la jaajëfal hmm. ah, waaw waaw mais <laughs> ni waaw nga dikkee tey ci ñun waaw waaw mënut a ñàkk parce que kii woote moo tax Euh, sama wëllëre la sama xarit la donc euh, mënuñu ña li li ñu def mooy euh, li gën a tuuti li ñu war a mën a def suñu diggante ak moom parce que vingt ans quand même yàgg na te Médine yàgg nañ wax dëgg yàlla soxnaam it di sama rak di sama xarit wax dëgg yàlla donc satisfaction rek la ñu am bala nuy ñëw ci Diamy nga wax ko yow ak Médine vingt ans du vingt mois. nga xam ko bari loo mën a seede ci moom ñëw nga dégg nga kilifa yi li ñu wax dégg nga ñiy wax lu baax li nu wax ci Médoune sa témoignage ci moom bu ma la laajoon doon. dimanche kilifa yi déplacé wu leen xam nga du du du yomb donc nit mooy baax rek ba tax mooy mën a yëkkati nit donc euh, euh, Médoune moom nit ku baax la li ñu ko ji nii wax dëgg yàlla moom moo ko jiwaate donc euh, dañuy ñaan yàlla di ko ñaanal ah, yàlla lafal ko cat xéwalam yi gën a yokk ndax wax dëgg yàlla xam nga image Médoune yi ci ka bokk waaw Médoune dafa bari image donc dañ koy ñaanal yàlla rek des fois nga tooñ ko xale yi am lu ñu def nga ne nga ne Médoune kere yi waaw waaw Médoune mooy kere yooyu lépp rek xam nga Médoune moom moo am fitu di créer yéen waaye xale yi amuñu fitu sax jàkkaarloog man bay créer dara Médoune la rek. Ah, ñëw ci sa sa jabar Jami. mu nekk sa rakk laata muy doon sa sa jabar. waaw waaw vraiment. Badou euh, sama euh, jami sama rakk la laata muy nekk sama soxna donc euh, dañ koy ñaanal yàlla moom tamit ah, yàlla bàyyi ko si kanam ah, yàggal taxawaay njaboot gi barkeel ah, wax dëgg yàlla moom moom rafet nañ jot ci moom parce que jigéen bu baax la. duñ ne duñ ne duñ ne cam waaw parce que def fi dara loo xamante ne wax dëgg yàlla war nañ ne cam euh, soxna su baax la soxna su am taalibe donc dañ koy ñaanal yàlla taw fi c'est que ndax xale la nekk ci milieu bi miinoon ko loolu doon ko dund mais mu dugg ci néegu sëy rek samp toog effacé wu ça dépend euh, euh, xam nga kenn ku sa obligation ak li ngay bëgg di def ak li sa borom kër bëgg Euh, defe naa ni que euh, loolu rek moo war soxna donc euh, dañ koy ñaanal yàlla encore une fois de plus rek li mu bàyyi li mu ci ci li mu jëm gënal ko ci li baax waaw. kontaan naa. Sayer moom xam nga du dëgg. du tëdd sax Sayer moom dadul dëgg laa wax. Sayer waaw waaw waaw walaay jamono la rek. ay ci def ko paas ko ba ko. waaw di la kontaane lu bare bari bu sëriñ Babacar Si yal na yàlla nangu siyaara te boole nu ko ñoo ngi nuyu mboolem ñu ñuy seetaan ci baatub asalaamaaleykum moom sa digganteeg Médoune àdduna xam nañ ko euh, lan la la Médoune wan ba tax nga jàpp ko baax ak dëggu ak jub ndax loolu daa manqué ci jamono loo wax jëfee ko dafa manqué ci jamono te yooyu mu ngi ci Médoune loolu moo waral nu xameñu ak dëggum ak jubam ak mën a yaatalam ak mën a rafetalam moo waral sunu mbir yaatu ndax nit bu dëggoo neex a jëflante waaye nit bu dee xottikatu wor ma lu mu wax du ko de fonkut kàddoom fonkut kenn kenn du yàgg moom moom nag ku baax la baax googa moo waral lii. <laughs> ñu faral heure bu Serigne Cissé génnee rek ci improd la génnee te macha allah bu waxee réew mi déglu ko ah. yaa ngi wax ne euh, li li la li la li la tonton mi doon wan ba tax nga jàpp ko euh, moom moo tax nga téye ko yan qualité moom moo la gën a marqué ci ki nga xamante ne moom moo di waaw mooy jub gi xam nga njub njub mooy mooy mooy cadré lépp te dafa jub te gis nga nit bu jubee soxna si mën na am lu ne mën naa am ku ne nit nag bu jubul. pour mu am ay nit du du yomb ndax kum kii dalay wax loo xam ne deful ko nga ba ko moom nag ak jub moo tax ñu ànd ak moom ci lii waaw waaw ok réew mi yëngu euh, làmb yëngu euh, Modou Lo le roi des arènes ku xam sa diggante xam ak moom ñu gis ne ñu bari dañ doon wax naan Modou euh, bi mu bëlee jëlee ki nga xamante ne moom moo di Ama Baldé am blessure ñu dafa daw parce que dafa ragal ki nga xamante moo di Ama Baldé Modou ñibbisi ñu gis moo Modou ci beneen anam muy jor li nga xamante ne moom moo di ay ay ay téere alxuraan di jàng ñëpp naan Modou est-ce jëlul décision bàyyi li nga xamante ne moom moo di làmb parce que dafa dugg ci wàllu ibaadu yow mi mu nekk sa sa sa sa sa sa jege ñaale nga xamante ne yow tout le buy buy buy bëree da nga koy ñaana lan ngay wax ci loolu. waaw loola. ñu ngi dinañ ca wax. muy ci combat booba waaye ma may la ci leen mbooloo mi. dinaa ci def conférence de presse boo xam ne ci diggante Modou Lo ak Boy Niang conférence de presse mboolem luy site internet daal di toog waaye comme que ko laaj loolu ma mayaale la ko nga téyewaale ko te buñ ca yeggee da nga teew ndax combat boobu saa su taxawee déclaration ba may def yow da nga ci bokk te da nga ñëw ca kër ga danga nga fekkee la ñuy wax incha allah. incha allah kon kon ci ci Modou Boy Niang ngay wax mais Modou amaa Baldé bi ñu doon wax dafa daw daf ko ragal doo ci wax. déet xam nga yàlla day tonti mbir Ama la mu waxoon ne Modou da daw dal na ko. ndax yàlla ma teg yàlla yàlla yow yàlla teg na ko lam ko tegoon kon mbir ma kenn ku ne yàllaay def ay nattu teg na ko nattu nattu yooyee nag euh, accordé na ko d'accord moom it loolu dalaat ko kon ñoom ñëpp yàlla na nu wér rek sama njaboot la nu yàlla nu wér <laughs> jërë ngeen jëf. ok nan nga gisee réew mi euh, instant bi parce que surtout yéen ñi nga xamante ne ay sëriñ ngeen am na ñoo xam ne dañuy mbubboo li nga xamante ne moom moo di sëriñ si euh, di ci wax naka sadul noonu ba tax na euh, bu ñoo ñu génnee wax rek bu ñu bu ñu leen di blâmer dañu ciy raaxaale ñëpp. waa xam nga nit buy jikko yu yàqu bokk na ci li waral réew mi taxawee nii kon jikko yu yàqu yi bokk na ci li tax réew mi am problème kon loola faaw ñu jéem a rafetal jikko yi mooy li ma la wax rek àdduna bu nit ñi jubee lépp baax bu nit ñi jubul nag pour nit ñi nekk ci yoonu normal day xaw a jafe kon nit ñi nañu jub moo war a rëng-rëng ñi ne ci réew mi bari loola mooy mbir mi kon nañu fexe jub fexe nekk ci loo xam ne mooy yoonu buñ ko defee rek yàlla dimbali ñu incha allah waaye réew mi yëngu na. réew mi yëngu na sëñ Ciss lan ngay tàggatoo. di ñaanal ñëpp yàlla euh, rek di leen ñaanal suudara sax dàkk ci dara ju yonent bi barki sëñ Babacar Seck waa këram. bu ngeen paree